maaleykum xalif général sëriñ Muntaxa Basiru Mbakke sa doom sa taalube sa soppe moo ñëwaat fii tey ziyaar la si ak nuyu si la si njabootu xaadimu rasul bi yëpp fi ci Touba ñëw bii nag tey dafa nekk uh, ñëw bu ma def ci biir campagne électorale bu ñuy tàmbali tey ma sàkk woon ci yow nga may ma ma ubbeeku fii ci Mbàkke ginnaaw bu ma ñëwee ziarale si la tàllalaat la samay loxo sakkuwaat ci yow ñaan ñeel réew mi waaye sakkuwaat it ci yow ñaan ci ñuy beneen jéego bu ñu fas yéene def ngir suñu boroom dënkaay réew mi ci coobare askanu Sénégal yëpp ma ñëwaat ci biir loolu di feddali donc taalibe di sama yéene la ci liggéey yu ak bërëb yu tëdd yépp yi nga xam ne yëkkati nga fa ay liggéey ci biir loolu ma ci rafet lu lool université islamique muy daara ju kawe joo xam ni yaa ko sàkku ngir mottal yéene sëñ Tuubaa bi mu amoon ci wàllu xam-xam ak wàllu daara muy daara ju mag joo xam ne liggéey bu yaatoo yaatu te lépp yaa ko fas yéene mottalil sa bopp waaye ñu ñaan rekk mbokk yépp mën ci barkeelu ñuy rafetlu taxawaay yooyu ba tax man ne la woon yow de Mbàkke boo yëkkatee sumb bu toll noonu nguur gi war na féete ci yenn côté yi lu jëm ci lu yombal yoon yi ndox mi courant bi ak lépp loo xam ne dëkk bi yellool na ko du ma wax liñ ci jot a def ndax loolu lu weesu la li may wax mooy samay yéene ci Touba ci fa jëm ak sama yéene ci Sénégal ci fa ñu jëm bi mu ñëwee ci màggal ji daje woon naa ak homme d'affaires yi nekk ci tuuba ak li ko wër ñu xam ne dëkk bu tëdd bii tey fi mu toll ci population ak ndaw yi fi xëyee laaj na ñu taxawal fi ay usine usines muy bërëbu liggéeyukaay yoo xam ne lépp lu ñuy jaayeeti ci meññeent mbéy mi si kàttanu borom bi ñu ubbi park bu boobu boobule nga xam ni ñii di naal dëwlin ji ñu tuddee leen rasiat déjà wane nañu euh, liggéey bi ñu war a mën a am ànd ko ak usine yëpp yi nga xam ne tey ñooy liggéey diwlin ci réew mi loolu dafay nekk rek joxoñ si ni usine boobu ni park bi war a doxee ëllëg ngir ndaw yëpp mën a liggéey ci parc industriel boobu leneen itam mooy wàllu mbéy ku ne xam na Touba euh, xéewal yi yaatu na fi ak barkellu yi moo tax ñu ne war nañ fi def domaine agricole communautaire muy tool yu mag a mag yi ñu tàmbali ci biir réew mi yoo xam ne benn bu si ne mën na jël lu toll si ñaari junni yu ndaw ba lépp lu ñu fi jëfandikoo ci wàllu maanaam lépp lu jëm ci légume lépp lu jëm ci wàllu ganaar ak euh, agriculture ñu mën di ko def ci dëkk bi su ko defee loolu itam dana nekk ngëneel beneen bi nga xam ne yéene la itam te ma ci liggéey mooy ginnaaw autoroute bi Ila Touba ñu fexe na ci sama yéene jëm ci dëkk bi bari na it ay yoon yoo xam ne waxtaan naa ci ak Cheikh Bassirou muy yoon bi wër autoroute bi comme day yegg si il faut que tam ñu am ceinture beneen bu mag ginnaaw 33 bi ñu def mais bu mag boo xam ne mooy wër ndombo euh, dëkk bi su ko defee ñu bëgg a ñëw directement si booru jumaa ji ñëw ñu bëgg a continuer jëm daara mën a dem te du am benn jafe-jafe ak yu bare bare yoo xam ne duma ko mën a nekk fii di lim ci gàttal daal Mbàkke yéene la am ci yëggali sumb yi ñu naal depuis 2012 juróom-ñaari at yii ñu génn te naal yooyu yëpp suñu borom nag baaxee nañu ba programme yi presque li ci ëpp alal ji teew na ba pare en tout cas ñi ko war a joxe wane nañu seen disposition pour gunge ma ci liggéey boobu kon maa ngi ñëw sàkk war la ñaan yàlla mën ñu may ndam ci euh, taxawaay bi ñu taxaw muy élection yi ñu dëgmal te itam ñu dugg ci élection yi si jàmm ak salaam ndax Sénégal gii réewu jàmm la te mag ñi ñoo ko fi ñaan kon waruñ nangu kenn kenn kenn ku yëkkati fitna ndax fitna bu jógee ci am réew kenn xamul fu muy fu muy teeree moo tax ñépp war a wax jàmm dox ko rafetal itam jikko yi ndax yàlla mooy kii maye loolu bu leeree si bopp ñëpp du jar coono ku ne nag da sabablu ndax sunu borom moo ñu wax lu sabab waaye nag maye bi moom moo koy joxe tey am na fu mu koy jaarale yaakaar naa ne fi mu koy jaarale fii bokk na ci ci lu wér kon ñu moo tax ñu ñëw tàmbalee fii di la santaan Mbàkke di la gërëm di ñaan yàlla ñu yàgg fi lool ci ànd ak wér ñu yàgg di la gunge di la di taxawit ci lépp loo xam ne mébét la may sant di Ah, sëñ Bassirou ak mboolem njaboot sëñ Touba bi teew fii tey ñëw teeru la si la say doom say taalibe ak say njaboot ñëw naa ak délégation bu yaatu waaye yaakaar naa ne kàddu gi mën na yem foofu ndax suñu xel dalaat na te xam naa ne incha allah bu ñu fi jógee lépp dana leer kon jërëjëf Mbacke yéen a ngi fi yàgg te ànd ak wér. ci ndigal sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ci ndigalam ak turam ak kàddoom lañuy ñuy fas yéene yëkkati li ñuy bëgg a wax di kàddu yu nuyoo yu jëm ci doomam di ab taalibeem di président Macky Sall ak mboolem délégation bi mu àndal bépp te buñ ci Mouhamed Dionne premier ministre di sa njaboot moom itam moo mën a yóbbaale ñi ci des ñëpp kon jataay bi ñu toog ñu war a bàyyiwaat xel bu baax ci kanamu ku tedd kii ñu toog te alxuraam dafa am lu mu santaane woon ci ay teggin ci saxaaba yi ci seen digg rasulullahi sallallahu alayhi wa dafa waxoo ne laa tarfahu aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri baadikum li baadin an tahbata amalukum wa antum la tash'urun inna allazina yaxudduuna aswaatahum inda rasulillah ulaika allazina imtaxana allahu qulubahum li taqwa lahum maxfiratun wa ajrun azim te al ulama warasatul anbiya kon fii sëriñ bi toog tey moo fi doon sëriñ Tuubaa te sëriñ Tuubaa moo doon rasulullahi kon nag képp ku toog ci jataayam war ngaa bàyyi xel bu baax ci ay teggin war ngaa bàyyi xel bu baax ci war may barab bi war ngaa bàyyi xel ci ki nga toogal ndax moom kat bëggut ko wax ci moom waaye ku am jëmbu ju màgg ju toll ne moom war ngay fàttali nit ñi ki ñu àndal ki mu doon ndax ñu mën a jariñ ci moom ndax Sëriñ Tuubaa nee na xam ko am ko taxamoo ko dara jër ko moo ñàkk ko te am ko xam ko amoo ko dara jël ko kon nag kii ñu toogal ginnaaw bu mu doonee sëñ Tuubaa ku ko xam ko ne xam ne amul yitte àdduna léppam jeexal na ko ci yàlla léppam jeexal na ko ci sëñ Tuubaa muy jëmm joo xam ne itam àdduna boolewu ko sax ci biram ba ma ko xamee ba fi ne mosuma dégg yitteem ñu jëm ci wàllu àdduna musuma dégg mu ñaanum courant musuma dégg mu ñaanum yoon suma dégg mu ñaanum ndox fu ma wooyee yónni ma rek soxla si keneen lay doon waaye moom ci boppam sax li nga xam ne ay dëkki boppam la amu ci lenn loo xam ne moo koy sàkku ko ñaan kon jëngu ju mel noonu ko yàlla defal mu wëlbatiku rek topp ci njabootu Serigne Touba ji di doomi Serigne Touba di xalifa Serigne Touba yi di ay magam kenn ku ci ne mu tërbiyewu la jël bokk gi jënd ko ak taalibe ba làq sa ngërëm kon ku bari ngërëm la kon nag képp koo xam ne ñëw nga ci kanam war ngaa xam ne booy sàkk lu baax ba agsi ci moom na sam xel la ci ne dama ku nekk itam te xamoo tam lépp lu la ca dalkat ko teg sa ndax Sëriñ Tuubaa daana wax ne nit dana ma jege ba nopp sori ma waaye nit dana ma sori ba noppi jege ma kon nag li am solo mooy fexe ba bañ a nekk ci xelum sëy bi te nekk ci xolam loolu mooy li am solo kon yàlla nañu ci yàlla dimbale bañ ànd moom ci dëgg ànd ak moom ci te sellal li ñuy def digg ak moom ci biir xol kon président sëriñ bi nee na ñu ngi lay nuyu bu la sant di la gërëm ci ñëw bii nga fi ñëwaat tey te fas yéene itam ni moo ko waxee ma jéem sama kéemtalaay kattan ngir jot li nga xam ne wax na ma ko ndax wa man kasaba alayya mutaamidan falyatabawwa maqaadahu min annaar kon nit lépp lu wax ci war na ko mën a seere ngir ëllëg kon lu gërëm bu baax a baax cant gi itam nag nee ci sa jëf la ko teg ndax njëkk muy toog ci jotaayu sëriñ Tuubaa bi naka jekk ëmbal nga ko cofeel àndal ko ëmbal ko ak fonkeel jël sa lépp jox ko ba mu xam ko lépp loo xam ne itam masa ko xam ci yitte joo xam ne loo ko jege la def nga ko kon moom nee na naka jekk da ngaa dëkk ci di ko teral kon nee na nag teraanga jooju nga xam ne moo nga ko doon teral Sëriñ Tuubaa rek a tax nee na nag moom nam la ko waxe woon rek daanaka amu ci lu ci dolli wala lu mu ci wàññiwaat ndax eh, loolu naa am tuuti lu ma ci leeral bala maa jeexale ci kàddu yi nga xam ne moom la ma mujj waxaat démb danaa la ko waxaat nga ñëw na sam xel dal bu baax ndax sëriñ Saliou Mbacké waxoon na ne yaakaar ju tas miinul yoonu kër sëñ Tuubaa kon nag bu fekkee yàlla dafa def nga ñëw ci moom ñaanoon ko ndigal ne ko bu ma soñoon bu may ubbi campagne bi tàmbalee ko fii ci yow nga ñaanal ma ma dem ci barabu sëriñ Tuubaa door a tàmbali damay yëf ci mbirum àdduna ma def ko mu nangul la ko keroog ba ngay ubbi Ila Touba bi kon nga defewaat ko noonu loola itam kon na sam xeddal ndax Serigne Touba dafa waxoon ne anna man waasalani laa li xaradin dunyawi fa innahu yakunu wa anna man waasalani du dunya faqat fa inna yukrimuhu ma dama xayan nee képp koo xam ne ñëw nga ci man te daray àdduna taxu laa jóg suñu borom daan la boole ci ñëm ko gën a képp ko xam ne dangaa ñëw ci man ngir àdduna rek suñu borom daan la teral diiru sa dund moo tax dafa waxoon Cheikh Abdoulaye Mbacké dafa waxoon ne Serigne ne ñi fi ñëw yàlla suñu borom dama koo liggéeyal ba mu fay ma àdduna ma teg ko ci sama biti loxo moo tax képp ku ko fi sàkku si ku ne danga ko am daal di wax ne ñii fi ñëw ñaar rek la koo xam ne àdduna leen di ak koo xam ne àllaaxira leen di nee ñaar yëpp nag suñ boom jox na moo ko te doyoo ma ko dara kon nag ki ma jaaxal daal mooy ki nga xam ne ni ma yàlla def neexu ko kon nag waxoon na ne am na naar bu ko wax na ko seex minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu laaxirata ñii àdduna leen tax a jug ñii alaaxira leen tax a jug sëriñ Tuubaa ko ne ko wa la laaxirata wal uulaa àdduna am na fi ku ko mi ngi fi alaaxira mi ngi sàkku fi am ko fi kon nag na xel dal baax baax te xam ne képp ku fi nekkal Serigne Touba waxuma la lum ñaan wala lu mu bëgg waaye lu mu lay yéene rek suñu doom daal la ci dimbali te moom ñëpp xam nañ si yéene ci moom ndax waxoon na ma ne ma naa la wax ne la xam na lii sa yéene mooy yéene ji nga am ci réew mi nga mottali ko nee na kon nag moom xaw li nga ko sédd ci boppam mooy mu ñaanal la yéene ji nga xam ne am nga ci réew mi yàlla kàttan na la ba nga mottali ko waxaat na ma it ne ma naa la wax ne moom Serigne Touba rek bëggut dara Serigne Touba rek moom rek la bëgg nee na itam xam na ne yéene ji nga am ci moom moo tax sa mbir da koo jël tàbbal ko ci biir liggéey bi muy liggéey Serigne Touba nee na mu xamal la ne sa mépp jël na ko jëbal ko Serigne te Serigne Touba bi mu ko jébbal nag kenn du ko ko jébbal di am ci ko lu ko naqar rawat na jëmam ji kon nag béy wasam xel dal sa njort rafet te mu wóor la ne li ngay sàkku moom ñaanal la ci te xam nga ko kon ñu ngi jeexal foofu kaddu yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh